gannaaw bu mu yegsee ci dëkk bu tedd bi nga xam ne nii moo di Touba njiitu mi waa dëkk bi yépp teeru ko teeru bu rëy bi ñu ko teeru moom egsi na ba fi nga xam ne nii moo di kër mag moom kër mag moom nag ba mu yegsee ci ëtt ba këkka njëkk tatagal teeru ko mooy ki nga xam ne moo yor baatu xalifa bu tedd bi di ki nga xam ne ni itam moom moo doon sëriñ ba ab Abdu Xaadir moom sëñ Bass Abdou Khadre nuyoonte njiitu réew mi saafonteeg moom ziyaaranteeg moom ànd ak moom ba ñu yegg ci ki nga xam ne moo di xalifa bu tedd bi di sëriñ Mouhamadul Amine Baara sëriñ Mouhamadul amin Baara yitam toog di xaar ganam toog di xaar ab taalibeem toog di xaar itam wëllëreem nuyu ko yeeslu itam fedd li itam ab laxasaayam ci ki nga xam ne nii moom moo doon Cheikh Mouhamadul Amine Baara njiitu réew ànd ak ay kilifa. ànd ak mbooloo mu takku ngir ñëw siyaare ngir ñëw sargal ni mu koy baaxoo di defe ku tedd ki ba ñëpp siyaare ba noppi itam am na ay kàddu yoo xam ne ni tukkee na ci sëriñ Basiiru Abdu Xaadir moom mu yor baatu xalifa bu tedd bi mu doon kàddu yi fàttali kàddu yi itam soññe kàddu yi jàjj ak kàddu yi ñaax ñi nga xam ne nii ñoo doon taalibe yi ci melokaan ci itam li doon postéefu dëkk bi ak li nga xam ne moo doon taxawaayu dëkk bi ak ñi nga xam ne itam ñoo doon xalifa yi Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasool li ñu fi def ñu tàmbalee ci sëriñ Mouhamadul Moustapha ba ki nga xam ne ni moo di Cheikh Mouhamadul Amin Baara loolee nag gannaaw ba mu ko bërelee am na cant goo xam ne ni nag cantuk yoon wi yépp la cantub xalifa bu tedd bi jóge ci sëñ Bass Abdou Khadre yegsi ci ki nga xam ne moo doon njiitu réew mi ngir rafetlu liggéey bi mu def ci dëkk bu tedd bi nga xam ne moo di Touba. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تي نديغلو سيرين توبا الشيخ محمد بن بارام باكي ميغي خاني مو في جيمي سيرين توبا تي كاو سوف نوغي نيان سوني بروم ياغال ما عندكو وير ba li nga xam ne fas na ko yéene liggéeyal Serigne Touba lépp àgg ci jàmm président de la république ci ndigalul Serigne bi ak ndigalul rakkam yu tedd yi nga xam ne mboolem njabootu Serigne Touba ñu ci biir waaye ci ndigalul jëwriñam jii di Serigne Mountakha ñoo ngi yëkkati kàddu di dalal fii ci Touba dëkkub Serigne Touba bii nga xam ne dëkk boo xam ne sëriñ Touba da koo sosoon ci ragal yàlla. ak jaamu yàlla moo taxoon Serigne Touba sos ko wax ne li tax mu sos ko mooy daw nit ñi ak daw li nekk ci loxol nit ñi mu ne bi may sos dëkk bi itam yaar rek laa fekk saawoy nag ak windewkal loolu mooy fekku fi dara kon lu fu dëkk bi àgg rek Serigne Touba ak ñaaram moo ko fàggale mu taxawoon ci pàkk bu tedd bii di wax ak suñu borom ne ko wa wajaal ilahi maskani tuuba abad mithla smiha bijaahi xayir man abad kon ñaanu Serigne Touba moko ko fi kon nak président ci ndigalu Serigne bi neena ñi ngi lay dalal jàmm bu baax ci dëkk bi di dëkku Serigne Touba di dëkk bo xamni itam yaakaara doono fi gan ndax yag nga fay ñëw lool dëkk bi nak Serigne Touba dafa sosu yoonu mu rek ci terbiya ak liggéey moy yar ak jàngale loolu la sosu yoonu mu rek ak liggéeyal liggéey liggéey googu nga xam ne tarbiye tarbiye na ci nit ñi nag ndax daa wax ne tubaab yi de yaar rek lañuy jëfandikoo ci nit mooy ku leen jaaxal ku ne danañ la xupp wala ñu xëpp la yaar yooyu nag la Serigne Touba doon dawal ak njabootam ba tax mu yaree leen noo xam ne xam nañ seen bopp ba kenn mun leen a xupp waaye itam noonu la leen jàngale liggéey ba kenn mun leen a xëpp ba ba ñu wàcc seen bopp kon Serigne Touba foofu la nekkoon. loo taxate mu fonde yoonu murid ci loolu ba tax boo delloo ci xasida bi da ngay dégg muy wax ne sàkkalu leew moom liggéey sàkkalu leew la koy tuddee mu ne farata la ci bépp jullit loo tax nag Sëriñ Tuubaa <coughs> tàggat yoonu murid ci loolu ba fii ñu àgg ñu àgg ndax daa wax ne ku la ko ne mënal la loolu nag moo ci la tàggat yoonu murid ba tax ginnaaw boo xamee ne sëriñ bi ñibbisi na Touba bàyyi fi naalu jumaay Touba ki nga xam ne moo ko fi njëkk wutu di Cheikh Mouhamadou Moustapha liggéey na ci liggéey bu rëy ànd koog taalibe te boobu ko na xam na kiris ba Sénégal nekkoon. waaye ci njàmbaaram ak takku gu yoonam mu a takku ak xam seen bopp tax na ñu indi raay bi jëlee ko Njaaréem indi ko Touba te lépp taalibe yi ko de fondement ji ba ba ba fondation àgg mu bàyyi ko fi door a wujj boromam ba fi bàyyi ko itam Cheikh Mouhamadou Fadil agsi ñaan suñ borom mu may ko. mboolem bu doon bekkoor ci senegal mu tàggoo fi bu faw suñ borom may ko na mu ko ñaare woon nawet ji daal di baax daal di baax bekkoor tàggoo fi moom itam mu daal di liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bi liggéey boo xam ne ñëpp teg nañ seen bët ngir fa saasa daa daal di àggali jumaa yi def ci xaalis boo xam ne kenn xawu nu toll ku ko doon lim na ni ay milliards lay doon te la ci gën a yéeme nag liggéey na ko ba mu àgg ba bi mu àggee bi mu fi bàyyi ko boo demee benn benn almet boo ko taaloon kër gi kër gi tàkk kon kooku li muy wax ci diine lu wér la mu bàyyi ko fi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñëw moom itam ku ne xam ne ne bi mu agsee defal na fi Serigne Touba loo xam ne kenn nattabli ko firnde jëm mooy barab bi ñu nekk ci ko liggéey na ko ci jumaa ji ak daaree Kamil sombu fi université bu mag loolu lépp liggéeyal Serigne Touba ak tàggat gu Serigne Touba tàggat taalibe ci liggéey moo tax mu mën a am mu bàyyi ko fi Cheikh Abdoul Khadir ñëw yàlla dogal na yàggu fi ab liggéeyam mu ëppoon ci wàllu diine ji ak defar ji ko ba Serigne Saliou mbakki ñëw moo itam naal yi nga xam ne ñooñu bàyyi woon nañ ko fi mu àggale ko ba def ci jumaa lu bari. Mhm. bàyyi bàyyi fi it naal naal yu bari bàyyi fi ci xaalisu Sëriñ Tuubaa loo xam ne mën na 15 milliards ba yàlla dogal moo itam suñ borom jëlee ko fi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke ñëw moo itam fa way juróom ya tegoonu tànkam rek foofu la tàmbalee yi wéy ndax mbirum Serigne tey june bu agsee moo lay fàttaloo démb moom itam bi mu agsee naal yi nga xam ne Serigne Saliou bàyyi woon na ko fi mu fas yéene àggale lépp ak sumb naali boppam ci biir loolu itam bi mu fi laataan toog lu mat at yokk na ci compte Serigne Touba bi lépp un milliard loolu nag yaakaar naa ak njàmbaar la bokk na ci itam jumaay Touba ji ku fi ñëw gis nga ni mu soppi ko boo fi dimee boo fi duggee la sëriñ Abdou Lahad Mbacke waxoon ne ku fi ñëw xam ne Xaadimu Rasuul soo ne yaakaar naa bii ko romb ci penc mi danga gis jëfi Cheikh Mamadou Lamine Bara ndax yaakaar naa ñàkk na jumaa ji lu ëpp ñaari milliards yéematul foofa xurum yi li war jumaa ji ñàkk na ci lu mat ñaari milliards moom itam yéematul foofa mu jël ci tëli dëkk bi def ci loo xam ne man na ñetti milliards kon loolu yaakaar naa ak njàmbaar gu ma sëkk yéematul foofa manis naa wax ne def na ay forage loo xam ne mën na ñett wala ñeent am na ci yoo xam ne ña nga ci te àggagut wàllug assainissement bi itam dugal na ci loxoom lu bari ba yaakaar na dugal na ci mooy lu ëpp milliard te loolu lépp ko ñaareel kon itam noo nga ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa mu yàgg fi loolu ndax bu fi àggee wóor nañu ne li Sëriñ Tuubaa ci dëkk bi dana àgg kon nag loolu la amoon ci lu ñuy jiital wax ko leeral ko bu baax li ci dolli ko nag mooy ganam gi fi ñëw muy président de la république maître Abdoulaye de moom nag yàlla defal na ko tawféex ndax tawféex ji mooy Serigne Touba ak gisam daa neex lépp da ko programme bind ko bàyyi waxoon naa ko bu yàggut bindoon ne dawlatu nasara intaxalat xuna min aydihim ila ila xayrihim mu ne nguuru tubaab yi dana fi tuxoo jël jóge ci seen loxo jëm ci neen loxo bind ko ay yoon yu bari bindaar weneen bayit wax ne fanaahum amma qaribin sayura bi izni man kullan abidi sayara mara buñ demee ba jàll nag samay taalibe danañ ñëw di doxal loola yàlla dogal nag muy ki taalibe Serigne Touba bi njëkk na président de la république kon loolu doo feex la muy taalibe goo xam ne itam. Mhm. manees na koo seere bu wér ndax bàyyiwut ba doon président door ko woote jiitu na ko bi mu doonee président itam lam ci daa wax jëfe na ko lam ca wax lam ca wax méngoo naa jëf na loolu li cay firnde mooy danaa ci nettali ñaar yu gàtt benn bi mooy loo xam ne na ko ci dëkk bi tam ump ñu bari mooy titre foncier bi def na ci loo xam ne yaakaar naa ump na ñu bari ay kilomètres yu bari mu def ko addee Sëriñ Tuubaa def ko titre foncier mu muy loo xam ne day garanti dëkku Tuubaa loolu itam yàlla dogal na ku ne xam na histoire yi ci xewoon laata muy agsi ba bi mu agsee mu defar ko Serigne Saliou ba mu àgg ba mu àggee itam Serigne Saliou ci kanamu mbooloo mu bari Matar Jaxate fekk na am seere la ca Serigne Saliou ci moom ak wax ko ne nee ko bu ma defaatul toon dara it na xam ne sant bu ko ba noppi ndax lii mooy li ma gënoon ñor kon nag yaakaar naa loolu doy na sëkk seere bi nga xamee ne itam wax na ne am na yéene fas yéene def lu mat ñaar fukki milliards ci Touba at mu nekk loolee itam 2007 la na engagement ba ci kanamu Serigne Saliou yàlla dogal ñu tàmbali ca tuuti Serigne Saliou bàyyi ko fi ba ba nga xamee ne ñëw na jaale si Serigne bi la mu njëkk a wax mooy. li nga xam ne façon naa ko ak Serigne Saliou fas naa ko yéene àggale ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké loolu itam seera sañ ci am mooy nam ko liggéey woon mi ngi ko ni defee loolu itam liggéey booba mu boole ne doom suñ Mourtala mi nga xam ne moo koy taxaw waaye bi ma laajee chiffres yi ci yi ñu ci mujj xam muy lu wër lu ma topp mooy 2007 dugal na ci ci dëkk bi loo xam ne ëpp na fukki milliards 2008 mën na 13 milliards 2009 bii weesu def nañ ci loo xam ne jege na 15 milliards. ak ku xam ne crise bi fi mu toll loolu nag jëf la joo xam ne adduna sépp war nañ koo xam yemaatul foofa itam wàllu ndox mii dugal na ci waxuma la nga xam ne def na ko li jëkke li tàmbalee 2000 ba 2007 waaye 2007 ba léegi defaat na ci lu ma juróom milliard loo ne projet bi mooy banque islamique développement financier loo xam ne ñu ngi koy liggéey te àggagut loolu nag bokkut ak abattoir bi nga xam ne def na ko fi ak li nga xam ne def na ko ci wàllu courant bi loolee itam muy jëf joo xam ne Serigne Touba ko defal Serigne bi nee na bu sañoon ma yegle ko ba ñëpp bi yëpp xam ne li muy wax ci dëkk bi mi ngi koy jëf méngoo naag li muy wax kon nag sëriñ bi nee na ci gàttal mi ngi koy sant bu baax di ko gërëm màggal gi itam li nga xam ne bëggoon nañ ko ci sëriñ bi ñaanoon ko ci moom la ci ëppoon solo muy wàllu courant bi ak ndox mi yooyu moom yaakaar naa ba fi mu ne benn gàllankoor amu ko ci kon nag noo ngi ñaan ci barke suñu Tuubaa ni mu tàmbalee mu àgg ak jàmm lii nga xam ne mi ngi koy liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bi moom Parisa itam Serigne bi nee na mi ngi ko ñaan ci barke Serigne Touba mu àggale ko ci jam ba somb yeneen somb yi nga xam ne fas na ko àggale ci réew nee na itam mi ngi lay sant itam ci ni nga xam yaa ngi koy jëf ci Sénégal gépp raw euh, yëmu ci yoonu wut waaye fépp foo xam ne këru diine la la la fa war lépp yaa ngi ko fay def nee na naal wi nga xam ne am nga ko ci këri diine itam mooy euh, capital l'islam yëpp bu ci ne nga defar ko. boo jugee ci Touba nee na loola itam mi ngi la ci sant di ko rafetlu bu baax te xam ne loo ci def rek na nga ne moom itam jàpp ne moom nga ko defal képp koo xam ne nekkal na fi Serigne Touba suñu borom dañ la kon nag Serigne bi moom nattablu na suñu borom rus na lépp loo xam ne bëgg na ko rek suñu borom dana ko ci fekk kon nag noo ngi ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba lii nga xam ne mu ngi koy liggéeyal Serigne Touba àgg ci jàmm ndax moom kat dal na xelum taalibe bi yëpp ndax li ciy firnde mooy ci nawet bi weesu rek na ko way jërëm bu tedd daa defee rek ñëpp jaaxale ci ba tiit waaye ba mu ñaanee na ya, ndox maa ngi nii may seen yaakaar naa àdduna sépp teg nañ seen bët wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ba ñu noppee ci loolu njiiti réew mi ak xalifa bu tedd bi am nañ waxtaan woo xam ne ni nag waxtaanu biir néeg la mu doon waxtaan woo xam ne nii ña ca teewee ñu néew a néew a néew la ngir yaatal ngir itam gën a xóotal li nga xam ne moo doon seeni gis-gis gannaaw waxtaan woowu ca la ñu daal di waajal ngir yegg ca jumaa ja njiitu réew mi teewe julli ajjuma gi ji njiitali moom moo doon sëñ Modou bu sëw ci julli ga nag njiitu mi ngi feggoo ak ki nga xam ne moo doon Cheikh Mouhamadul Amin Baara ni mu koy baaxoo di defe saa su ne gannaaw ba ñu jullee ba sëlmal ba ñaanalante itam ki nga xam ne nii moom moo doon njiitu réew mi dem na ci barabu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul ngir siare borom dëkk ba gannaaw julli googu ak ziar boobu njiiti réew mi dellu na fi nga xam ne nii moom moo doon fañu ko dalal di kër mag moom ci ëllëg sa nag waat nag cheikh mohamadul amin bara mu am itam waxtaan wu ñu seqaat waxtaan wa nag njëkk a yëkkati kàddu moom moo doon njiitu réew mi di sargal lool di sant lool di jaajëfal lool cheikh mohamoudou amin bara ak wa touba gep ak ñepp ñi nga xamne ni itam ño bok ci teeru ba ni mi ngi lay nuyu ñu bu sel ni nuyu bu sel dama waxon ni sax euh, duma wax dara ni dafa waxon sax ni du wax dara ndax euh, lepp ni ndax lepp def nañu ko ci sama ngan gi ni def nañu ko ci nganam gi ba lepp mat ba lepp mat Euh, ma ne woon damay bu ma xëyee damay ñëw rek nga ñaanal ma ma dem. mu woon bu xëyee day ñëw rek nga ñaanal ko mu dem. ndax li ñu doon wax nañu ko. ne li ñu waroon wax wax nañu ko. waaye. ma bëgg bala may dem. mu ne ma bëgg rek bala muy dem. ma gërëm la. ne mu gërëm la. gërëmaat la. la. ci li nga ma defal. ci li nga ko defal.

di gërëm population Touba. di gërëm population Touba. ci teertu bi. ci teertu bi. may gërëm ñi nga xamni ñom nga mo jaglél ne muy gërëm ñu ñi ko jaglél ñu di ma toppatoo. ñu di ko toppatoo. ndax lepp matna ndax lepp matna contane na. kontaan naa trop. ne kontaan na trop. waye xamna li ci gëna am solo. waye xamna li ci gëna am solo. modi di ñaan gi ma doon sakku moy ñaan gi mu doon sakku te nga ñaanal ma ko. te nga ñaanal ko ko. te mu di ko sàkkuwaat. te mu di ko sàkkuwaat. ndax foofu la lépp ne. nee foofu la lépp ne nag. lii nu gis ak lii nu gisul. nee li ñu gis ak li ñu gisul. Euh, am naa yaakaar ci ni. sama ñëw bii ci Touba tey. nee ñëwam bii tey ci Touba. ak li xew. ak li xew. dana nekk loo xam ne day marqué histoire du Sénégal. nee dana nekk loo xam ne day marqué histoire du Sénégal. ndax yaakaar naa ni. nee yaakaar naa ni. dana am impact ci situation réew mi. dana am impact ci situation réew mi. te itam. te itam. waa bitim réew mi ñi nga xam ne dañuy gis suñu télévision. waa bitim réew mi nga xam ne ñu ngi gis suñu télévision. dinañu xam man mii. daañu xam moom mii. naka laa nekk ci murid yi. laa nekk ci murid yi. nekk laa nekk ci sa wet. loolu man mooy sama doole. ne loolu moom mooy dooleel. doole doole jooju ko fii ci Touba. mu jëlee ko fii ci Touba. ci sëñ Touba. mooy yow. nga jox ma ko. nga ko ko. addina gis ko. addina bi gis ko. loolu nag mënuma fay. la ko xam naa waxuloo sax pour ma fay la ko. xanaa waxuloo sax pour ma fay la ko. man nag. ne moom lu may ci lu loo ma ci yokkal ci doole. ne loo ci liggéey rek laa xam. liggéey laa ci bëgg. liggéey sama liggéey. sama liggéey. pour Touba. pour Touba. pour Sénégal. soxla ma ci leneen. ne soxla ma ci leneen. kon maa ngi dina gërëm baax. nga ñaanal am na kàddu yu tontu yoo xam ne itam jóge na Cheikh Mouhamadul Amin Baara mu jaarale ko ci ki nga xam ne nii moom moo doon Serigne Bassirou Abdou Khadre moom mi yor baatu xalifa bi mu doon kàddu yu gàtt kàddu yu tënku waaye itam kàddu yoo xamante ne nii darsu bu yaatoo yaatoo yaatu lañ ca mën a jànge. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mi nga xam moo fi jëm Serigne Touba waaye nag kàddu yi ñu xeebu ci lool te lottu ci ndax dañ da ko dañu ko def ngir ndigal waaye tuuti nañ ci jot lee kàddu mu yëkki yóbbante ñu ak cant ci président de la république maître lay Wade di ko sant bu baax di ko gërëm ni ma ko waxee woon démb rek daanaka sëriñ bi daa wax moo jot lee ko cant ak ñaan waaye lañ ci waroon wax démb waxoon nañ lépp ba mu àgg xanaa lim ci wax ne naa ko ci dolli rek mooy xamal lépp loo xam ne Serigne Touba am na ko ci ñaan rek loolu daal la ci fàggul ñaanal la ca bari nga bëgg suñu borom defal la ko ci jàmm. loolu nag yaakaar doy na sëkk. ndax bu ko xasee génne ci wala am bi téye ci loxoy njiitu réew mi am ñaan goo xam ne itam ñaanal na ko ko ñaanal ko. ña fa teew ñëpp ñaanal ko mbooloo mépp ñaanal ko taalibe yëpp ñaanal ko itam Sénégal gépp kon loolu mooy li nga xam ni moo tukkee ca ngan gi njiitu réew mi amaloon